Euh, bokk na ci rek lu aju ci wàllu cour des comptes wala yeneen institution yi jël aju ci wàllu contrôle yi ak seen i nekkin lañ fay dépensé ci koppar te rapport ya daanaka euh, fa muy mujjee du bari bokk na ci waaye itam askan wi daal di yuuxu wàllu daal ci euh, njëg yu cher yi muy électricité bi muy rek wàllu marché bi ñuy sàkku nag ab wàññi ba ci école bu wopp bi 88 628 98 98 ñu jël ku jiitu ci ligne bi bitim réew 33 841 22 33 allo allo salaamaaleykum. maaleykum salaam wa rahmatulah. waaw sëñ bi. waaw sëñ bi na maa ngi la ah, Alassane. waaw Adama. ah moom oustaz maa ngi lay nuyu waa so sëñ bi. alaaji Saas boobu de ñu ngi lay bu baax fii. oustaz ñu ngi kontaan ci bu baax. Mhm. ñu ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu Papa Laye fa ne wala Alassane. Alassane Wade. waaw Alassane maa ngi di kontaan ñoom di ziar bàcc rek mbay di nuyu El Hadj Gora Ndiaye ci Sébikotane ak Yerson Dieng ci Touba Mbacké. Mhm. Oustaz. waaw. Ndaal Sénégal man je suis un mhm. mhm. sama doole. Euh, politique bu ma def di jël sama xaalis di woote ci rajo bi. di wax nag li nga xam ne moom la askan bi di dund. loolu njiitu réew mi ni jamono yi sénégalais yi ñuy dundee ñu bari na du ma ni sénégalais yëpp mais sénégalais yu baree bari ñu néew doole métti na ci ñoom ceeb bi yokk nañ ko diwlin yokk nañ ko vingt mille lay jar diwlin te kenn mënu koo gis bët ñu yokk ceeb bi ci askan wi métti ma di ko wax ni ko ku mu àndal lay jàppale wuñu ko ana député yi ana ministre yi nga xam ne ci ñun lañ jógee député yu bari li jóge ci ñi nga xam ne ñoo néew doole doo dégg nu waxal nu doo dégg nu kaasal nu kon ñun député soxla wuñu ko ñu nag ñooy député Sénégal député réew mi ñu di wax ne réew mi day jamono yi ni mu ni mu dundee métti na njëg yëpp yokk nañ ko te loxo jotul ginnaaw ma lay wax ñu nag na nga daaw addu balaa leneen di am wàllu Cour des comptes mi mu ci def rek Cour des comptes moom li mu génnee nañ ko teg ci yoxal justice ñu exploité ko xaw ma recommandation la xaw ma lu maa doon comme dañoo am police am gendarmerie ñu jubante ñoom Cour des comptes boo xam ne moo fi nekk ak yi argaan ñu jubante ji réew mi ñi nga xam ne ñoo ngi ko bànqaas réew mi pour dégg nañ la jubante li mooy gis-gisam sëñ bi saa si ñu xaar jël ko ci ligne bi allo salaamaaleykum waaw waaleykum salaam sëñ Adama ñu ngi lay ziar ñu ngi lay delloo ziar waaw ah dund gi de moom seeraay bi foo ko natt wees na ba pare da ngay gis yoo xam ne nag ñetti weer fay ñu leen juróomi weer juróom-ñaari weer kenn salaire lii kenn mësu koo gis ci Sénégal yow yaa lebi woon sa xaalis ñëw di ko campagne di ko pasar pasaree fu ne nga luyoo fay oto dem fa fu ne nga dem fa sotti xaalis di jël ni ñi di joxe ay 10 pour ñu topp leen nga leen di sa boo waree dem Touba yaa ngay sartee ji yëmbal ji wala nga dem sartee Touba wala Kébé wala tee Louga wala Kébémer ñëpp a ci teg seen bët nga pasar pasaree xaalis ba pare ne dañ ko fay askan wi daal boo bëggee dégg dëgg li gënoon a yomb sax nga xam ne dañ dee mat ko pourtant hmm. askan wi defatuñ ko toll na de mi ngi arnaak askan wi rek askan bi luyaas bi seer na dund bi seer na lépp seer na ba pare kenn liggéeytu dangaa nit ñi Sénégal ci boppam ñoo jaaxle Sénégal ci boppam moo loo la kenn xamatu lu muy nuru am na ñoo xam dañ naan la Macky Sall laa woote loon de waaye réccu gi ma ko réccee moom laa woote laat waaye réccu naa ko réccu goo xam ni tas yaakaar gi mu tas sama yaakaar ñee nit ñi moom ni mu tasa seen yaakaar mënu ko wax te logements sociaux wax nag bu leen ci def ar arnaque ndax nit ñaa ngi xëy ay 5 heures du matin ay 4 heures du matin ngeen di laaj nit ñi xaalis xawma lu ngeen seetale seen i gafaka ngeen bëgg moo tax ngeen di laaj nit ñi xaalisam déet waaye sénégalais yi sonn nañu sénégal yi dañoo deete dugg ñu bax tool nii ñëpp a sonn ñëpp a sonn lépp ceeb bi gënoon a yomb ñu koy bayee fii sax sénégal seize mille lay jar hmm. bidon vingt litre bii nga xam ne moom la góor di jënd muy diwlin bii di way vingt et un quelque mille lay jar hmm. euh, suukar yokku na lépp yokk amul daal looy jëm ci dund bi facture ndox yi mi ngi seer moo gën a seer sax yu courant yi courant lépp lépp a lépp a seer ay waay yërëmal askan wi askan wi deseelu tuñ la dara askan wi fi mu toll nii neewoon nga man nga ñu fal la juróomi at nga foqati ñaari at foqati waat yeneen juróomi at sa waa kër di pasar pasaree xaalis cour de compte jàpp leen nga ni defuñu dara bu dañoo leen a tudd rek tax dañoo def nga di leen di lakk nekk seen avocat askan waxoo leen loolu danga ne woon du ma làq kenn du ma jàppale kenn ku def na su dul noonu nga jaar euh, fee ok nag ñu teg la ci yoon tey nga làq leen nekk seen avocat nekk euh, avocat Cheikhou Oumar Anne di ko falaat nag ministre lii mooy da doy kokkali Sénégal yi Sénégal yi dañ laa fal ba pare delloo waleen ko waaye na dafa mel ne suñu borom ngay bëllee ndax moom moo sàkk askan wi ku am ci moom yërmande mu am ci yow yërmande te ah amul benn yërmande ci Sénégal yi. loolu di jàngatam ñu xaar keneen jël ko Alassane ci ligne bi allo. allo na nga def. waaw maa ngi fi. Amadou Pado lay nuyu maa ngi ñu ngi lay fay waaw. Mhm. su loolu jàllee nag euh, of naa moom képp koo xam ne ete nga nan la. Mhm. du président moo lay défendre. yow yaay am sa jëmi bopp sa fulay bopp nga démissionné dem défendre ji ba set wala loolu luñ lay def ñu def la ko waaye alal réew mi moom fépp koo xam ne si dañ la koo jox wate ko assemblée wate le budget nga ko kooku moom allah kulli alin da am problème ak yoon kooku kon ni ko Moustapha Cissé Lo mu waxee rek ci laa ànd li président li mu war a def def nañ fal nañ ko tànn na ay nit doyloo leen fal leen bu ca jalgati nag kooku sa bopp nga ko def sa jukkoy boppal waaye du jukkoy président te santu la ko ci du ci ànd ak yow même bu la falaatee ci leneen na nga xam ne daa bëgg ñu tëj la dong ndax bu fi jóge ñu lay tëj te président dëkk bi dana fi jóge de yéen ñi dénk alal réew mi ngeen luubal ko dem leen ngeen lijjanti ji ko léegi ca teel ndax képp koo xam ne eppe nga ne ñi la ñi doon audité moom duñu at yi ci caaxaan luñ kuñ xool ba ne la yow mi nga dara buñ la jëpp tey bu ëllëgee ñeneen ñi remplacé président dañuy ñëw dana la jàpp doo génn réew yow président jël walam dem yoonam wala mu dem këram tëdd doo seeti du ndax yaa ko trahir ndax dalaa wóolu fan la nga def lu wóor te Mm-hmm. dund bi seer na seer nañu nag toog na juróom-ñetti at yokku dara yëf yi ne dégg fi mu dégg déggoo kenn wax kon buñ dee ba situation bi obligé wu am prix yoo xam ne war naa am lu ci war a yokku bu boobaa nag dañ koy accepté rek ndax gënoon na fee métti xamoon nañ ci jamono yoo xam ne yokk yi kenn xamul fu mu ci mm-hmm. kon lii moo loolu fuuf kon liñ ci dem mooy sant ko yàlla ci ñaan yàlla jamono yi feebar yu bari yi am ci àdduna bi mu bañ ak fii ci réew mi nit ñi nañu sant yàlla nañu muñ te da ànd ko dal ci sant yàlla bu baax réew mi jàmm ngi fi ak salaam ñi ko seere ñu ngi ko war a seere ci ni ngi ko manière yi ngi ko war a seere mais leneen loo xam ne si nit bëgg na ko fi ci ay jafe-jafe dong ngay nekk jafe-jafe adduna bépp la daj kenn bëggu kenn yokk président bu seen saako ceeb mille francs lay jar kenn bëggu la lu seer kon na nit xam loolu nit ñi xam ne président buur d'accord euh, matal na ñaari simileem ñu jël xëy na kenn alsan 88 euh, allo allo salaamaaleykum allo waa euh, dafa mel ni mu ngi ci ligne bi waaye jotut dugg alsan bu fekkee mu ngi dégg euh, mën na rek euh, wax xalaatam ci 88 628 98 98 la allo allo salaamaaleykum. allo waaw. waaleykum salaam El Hadj Adama. waaw. ziar nañ la Matar Lam Guèye Kër Sanga. ñu ngi lay delloo ziar Matar. jaajëf Adama te nit ñi seet yàlla ci li ñuy wax Adama. te hmm, xam ni fii koo fi défendre aussi bis dina ñëw nga tal sa bopp doo ko dootoo ko tal. Hmm. di li Sénégal yi di dund nit bu ma dégg ngay taxaw di wax euh, le contraire rek man damay jàpp ni yow si jëm bopp sax changement par les jaloo waxoon muy benn et puis Adama euh, ñun euh, gis nga gis nga gis nga prix daara yi wa yokku nii ñun ñoo ko teg suñu bopp hmm. xam nga lu dañoo jël ay cuune jox leen ñu dawal ak ñun sept ans war ñu lu leer war ñu seen ay limite xamal ñu ni carrément dara xamuñu ko ay nit ñoo ñoo xamante ne bii dara intéressé leen lu may ay seen ay poche ñu jàll leen xaalisu réew mi dëpp keesu Senelec viré ko ci ay élection di ko neexale nit ñu ñu ñu fal leen à quarante huit virgule virgule virgule quarante virgule cinquante sept pour cent ñu euh, comploté ak ay juges yoo xamante ne bii gëmuñu dara ñu xëy xëy def déclaration ni waa ji am na cinquante huit pour cent moo ñoo la gën a xam ni ki ko doon def muy le six ak président Macky Sall ku ci tëdd nelaw di nga xam ni à terre reposée amul waa ji mënta am sax cinquante mënta am sax quarante neuf pour cent cinquante pour cent jéggiwu ko lu ni woon naa la coow loolu muy muy muy muy muy muy ndëral bi ñu sàcc bëgg koo tëdd mën nañoo sax yar ay gelam dem tëdd tëgg ko mais dañ koy tëgg ba pare du saf xorom kenn du leen du sentir ñu ngi koy tëgg mooy leen dal problème yi bari ci dëkk bi te duñ ko mën a régler hmm. mais lépp Sénégal yi ñoo ko teg seen bopp parce que li Thiès def Touba def ko ah Ziguinchor def ko bu ko bu ko Saalum defoon Kaolack Tëngéej def ko Dakar def ko kon heure yi Euh, Alassane kon loolu mooy euh, gis-gisam xëy na ñu daal di ko fi yemale waxtu wi dab nañu bu baax a baax ndax yi jàll boole kook euh, Sud Éducation buñ ca noppee 18h kii di Marie Rosalie Ndiaye mooy ñëw ci xibaar ci yaatal kàllaamay tubaab jaajëfal bu baax Alassane Wade mi fare woon ci sottandikukaay bi mu ci biti ak jaamu biir gudd fan ak wér-wér la am ak mën ak fekk ak tool yàlla ko yàlla defal.